bi madame le préfet di lu liggéeyam ak taxawaayam ci organisation élection bi mok équipe am yëpp di sante ak di gërëm di féliciter aussi conseil yi nga le ñom le population respectueux fal di sante population Ross yépp di sante suñu borom subhanahu wa taala di gërëm suñu ay wajur mais aussi di formuler ay prières jëmele ko suñu mag di Amadou Bekay job de remercier aussi bu baax son excellence Macky Sall mi nga une fois de plus porté waat na choix ci sama modeste personne de engager vous vraiment pour bañ ko décevoir ci tâche yi nga xamanteni mom lañu confier confié ak yaakar gi mu am ci ñun pour ñu développement wu Ross Béthio ngi talal loxo équipe municipale bi fi nekk à travers sa diversité mais di talal loxo aussi mbollem ku doon candidat ak toute la population de Ross chef religieux chef coutumier chef d'entreprise tout le monde pour que nous ayons liggéey de atteindre vraiment l'émergence que nous avons. ni moom la di vraiment ñi fi teew Nous den xamal la science bi nga avons la dëgmal science bi euh, conseils municipaux yi nga avons la loi euh, comme le sous-préfet Fatliko tout à l'heure respecte la parité que nga gannaaw yàlla dogal na man góor laa ñi ci topp ki topp ci man war a doon jigéen ki ci topp góor ba ñu defee noonu ba balaa ñuy respecté parité bi définitivement di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla Ross Béthio jëm ci kanam jërë ngeen jëf